tey nag li waral oote bi moy cocher wakam dafa am ak euh, chaque prélude tabaski di organiser des activités sociales moy joxe ay soplé pomme de terre à la population de wakam mi nga xamné ne à chaque fois w élection jotee dañuy sànnil ay carte di ñu jàppale kon événement yi bu jotee war nañ mëna taxaw seen bor jappalé jàppale leen taxaw leen si événement bi loolu mo waral tay activité bi euh, li ñuy tab tablé chaque année parce que daw defoon nañ 500 familles mais chaque année dañ koy a parce que nag wax dëgg fa yàlla population Wakam amuñu seen fay te ñun tamit wàllum social képp ku si xam xam nga tabaski korite Wakam lépp lu mu am bien vrai que ay jeunes lañ lépp lu ñu am dañ koy jënd ci ay condiments war na rek ñu population Wakam ndax Wakam rek ko ñu personnel parce qu'avant tout ñun ñooy jàppale suñu bopp ba pare lu am ñun ba si le ministre tey moo appui ñu tey lu bari bëri euh, ba tey li nga xam ne ne lañ yoroon boole ko ci pour mën a def tey jii activité bii nii. ndax lii chaque année bu ñu ko daa organiser fii Wakaam kenn du fi xaj ñëpp ñuy fekk se mais tey jii contexte bi ñu nekk moo tax ñu yemale ko nii tey euh, ñu ñu respecté mesures yi nga xam ne ne euh, wàllum corps médical yi moom la ñu édicté ñuy ñaan population bi ñu respecté ko di raxasu di sol ay masque mbooloo yi tamit ñuy dandante wax dëgg fa yàlla ndax euh, feebar bi proportion yi mu jël instant bi jaaxal na ñëpp ñuy ñaan de population ñu respecté mesure barrière yëpp yi nga xam ne ne euh, wax nañ ko bu ñu mënee toog tamit ñi mën a toog toog ñi mënul dem bu ñuy dem te aussi ñu xam ne une condition la ñuy demee waaw mais daal lañu respecté les mesures édictées par les médecins. ñu ngi aussi année électorale. xam nañ ne dem ci ay local gis ngeen ni.

doon benn ndax président Macky Sall ku ko xam xam na ne ci mbooloo rek lay dox moo tax mu teg bennoo tey jii jiitalul APR rek dafa ne mbooloo nangeen ngeen dem ci bennoo te ñun tamit jeunes yu Wakaam yi lépp loo xam ne dañ koy def rek ci bennoo lañ koy def def def d'habitude lépp lu ñuy yëkkati rek ci bennoo lañ koy yëkkati ñu ngi lancé population bi di lancé suñu leader du moins ñu gën a booloo gën a àndandoo gën a nekk benn te yaakaar naa ne sax loolu mooy am ndax ñu ngi siy dox bu baax macha allah ñu ngi siy dox. sax gis COJER Wakaam lay choisir. Mhm. lan mooy secret COJER jeune Wakaam yi ba paay di le nawloo Nan, ñoo leen waron waroon mais tey yéen a leen di jàngal. lu suñu fort mooy da macha allah am nañ unité ba pare dañu engagé wu dëgg suñu bopp ndax politique bu ñuy def ñun xooluñu ci koom-koom ndax xam naa ne bu doon koom-koom rek ñun ñëpp toog nañ. mais daf ñuy jaral sax ñu tek dara ku si nekk am la nga am sa poche nga génnee ko dañuy am activité ku si nekk bàyyi sa lépp ñu engagé wu ba mu jeex jeune Wakaam dara kiiw leen lu engagement ak détermination bëgg le président Macky Sall ndax nak jeune yi bëgg le président lañ depuis 2012 avant 2012 ba légui ñu ngi si terrain bi bu élection joté ñoy dem bu porte à porte joté ñoy porte à porte lepp lo xamné rek pour le président euh warna rek deug fa yalla jeunes yi dañ koy def sans attendre rien du tout nak waaw dañuy liggéey ndax dañ bëgg président de la république te dañuy réitérer aussi suñu engagement auprès du président de la république